alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi ma baaraxa ma bayo ma bayi bayo ma bayi ma bayi sibati saati bay baraham ma bayi Baay Barhama Baay Barhama Baay Barhama Baay Barhama Baay Barhama Baay Barhama ñu suñu góor gi jar na way ba dee ma ñu suñu góor gi jar na way ba dee ma ñu suñu góor gi jar na way ba dee way nuurul huda jar na woy ba dee gi dañ koy way ba ma mooy nuurul huda jar na way ba dee ma way nuurul huda jar na woy ba dee ñun gi dañ koy way ba dee ma ñun suñu góor gi dañ koy way ba dee ma mooy tuubal lay yàlla jar nay way ba way ba dee ah ma way nuurul huda jar nay way ba dee ah ma may jubal ndaw ñi way ba dee ah ma may jubal ndaw ñi way ba dee ah ndax muy xam ne yàlla jar nay way ba dee muy xam ne yàlla jar nay way ba dee ñu suñu góor gi dañ koy way ba dee ma barahama rong na leeri barahama barahama rong na leeri barahama barahama rong na leeri barahama barahama rong na leeri barahama du seen na leen barahama du morom barahama roon na leen barahama barahama morom barahama roon na leen barahama soy den ku denkal baay barahama soy dënku dënkal baay barahaman soy wóoru wóorulu baay barahaman soy wóoru wóorulu baay barahaman soy bëgg bëggal baay barahaman soy wóoru wóorulu baay barahaman soy dënku dënkal baay barahaman soy dënku dënkal baay barahaman أفرقوا من مدى برهما أفرقوا من مدى برهما وأفوت من بقى برهما وأفوت من بقى برهما gaay sëriñ bu بقاي سرنكم السرن أيمن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتير ما سبقنا صراط بالأقوال إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقدار عظيم نبي فا كيما a jote na ko sama nday Sërif mooy ki ma doy na ko way na ko way ki moom ta jaru di woo தந்தி dumadan sidi ajo tena ko samandai Abu Bakar kima. وين كوي كيمن دا جردي وي سنگ بي كيما دوي du đi có vội do buñ sañoon bi ñëw ñok sang bi ñoy and loolu lañ digi woon ak moom waaye am téq-téq bu jaar ci digg bi ci barkeem ak maqaamam maamam yàlla saafara xaaleel wala ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara leen jox seen wàccuwaay muy góor mu jigéen e ci biir loolu nag gan ku ko am da ko présenté kon ñu dugg ci présenté jotaay bi ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi muy Cheikh ay Aydara nga xam ne kenn la ci sëriñ bi muy sëñ baabakar Ngom ànd ndooram la foo gis sëriñ baabakar gis fa Cheikh ay dara teew na ci jotaay bi dëgg-dëgg doon koo xam ne digganteem sëriñ bi daal ah, yàlla rek ko xam waaye nit mënu koy misaal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko jox wàccuwaay bi nga xam ne yàlla moo ko jox ndax ku ne bëgg nga yonent yàlla Muhammad nekk sa maam waaye yàllaay tànn ki ko soob def ko mu nekk di ab sëtam sëriñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di waxit ci loolu e bi mu teewee ànd naag taalibi yëpp ñëw ku mel ni seex eh, mii toog ñu gën koo xam ci Cheikh Tidiane di kenn ca kër ga fële ca kër Sayda yànne na caam di wax ne jotaay bii yànne na caam ku ci am cër la parce que bokk na ci cër boobu noonu télévision bii nga xam ne tey mooy jël jotaay bi télévision am la bu jotee ngoog jotaay bi jotaayam la sëriñ bi jotal na ko nee na jotaay bi jotaayam la kon jotaay bii jotaayu saydaane ne la ñi ngi am mbégte ci lool bu baax a baax a baax a baax e gannaaw loolu ñu ciy teg Cheikh Mouhamad Niass e nga xam ne doom la ci Ahmad mu maam Babacar Niass nga xam ne mooy porte-parole kër gii di na ñaseen ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam boo ba léegi mi ngi toog fii xam naa ñàkkut dafa am itte yu tax mu jug dem ci loolu teyit mi ngi ñëwaat léegi e ci loolu ñu ciy tegaat suñ sëriñ Cheikh Tidiane Niass sëriñ bi ñoo ngi lay siyaara di la ndokkeel di la joxit sa wàccuwaay bu wér a wér di wax na it al muqaddamul mubaraka Cheikh Sakhir Ndiaye jugee na fële ca Dakar ñëw teewee jotaay bi dëgg-dëgg sëriñ bi ñu ngi lay dalal ñu ngi lay wax bisimilah place bi sa place la. xam nañ te pare naa dellu it waaw moom ci parrainage yi la e, mook Cheikh Tidiane mii ci parrainage yi la ma bëggoon présenté ba pare e, doog a wax. waaw mu ngoog Cheikh Tidiane moom mooy borom jotaay bi waaye Cheikh Sakir moom ca permanence jotaay bi ci la bokk mu ngi dend ak mbokkam doomi ndeyam muy Baye mbay di liggéey kat faydu bi di jàmbaari faydu bi sëriñ bi ñoo ngi lay siyaara ñoo ngi lay joxit sa wàccuwaay bokk na ci ñi fi teew muy cheikh Mouhamad Thiam ñoo ngi lay siyaara di la jox sa wàccuwaay eh, di la wax bisimilah bokk nañ fi teew ñi nga xam ne teew nañ ci barab bi mooy ku ñuy wax Galas Gueye Galas Gueye ñu ngi lay wax bisimilah fii sa place la Serigne Modou Thiam it teew na fii moom it ñu ngi lay wax bisimilah di la wax dalal ak jàmm ak ku ñuy wax Modou Ngom. moom it mi ngi si jotaay bi sëriñ Modou Diop moom it mu ngi si jotaay bi e, e, sëriñ Lom moom it teew na mu ngi si jotaay bi ak suñu sikarkat yu baax yi nga xam ne ñoom it ñu ngi si jotaay bi Modou Coy moom it teew na fii ci jotaay bi ak Cheikh Hassan Niass suñ sëriñ moom it mu ngi teew ci jotaay bi bokk na ci ñi teew ci jotaay bi muy Cheikh Omar Ndiaye moom it mi ngi teew ci jotaay bi ak suñ mbokku e, ñu koy wax Ibrahima Darame moom it mi ngi teew fii ci jotaay bi ngir taaral jotaay bi Cheikh Abdou Malik moom it teew na fii ci jotaay bi ah di waxit ne Cheikh Tidiane mu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom it teew na fii ci jotaay bi xam naa ay ite moo ko dab moo tax mu jóg waaye bokk na ci jotaay bii ñi nga xam ne ñoom lañ ko rand hommage muy cheikh mouhamadul mourtada maulana cheikh ibrahim ñas radiallahu taala eh, ki nga xam ne nag eh, moom lañ tànn cheikh farouk moom it ñëw na léegi ñu ngi lay siyaare ñas Kumba Abdullah ñu lay siyaare di la jox sa waay daaw yaa ko neexal ca sa waxtaanoo sa ñaan ya ñu ngi lay ñaanal yàlla fekkee dew na jàmm barki yonent yàlla Muhammad barki sa maam yu baax yi ci zahir ak ci baatin eh, gannaaw loolu eh, ñi ngi ndokkeelit suñ mbokki sikarkat yi parce que damay wax ne jotaay su neexee ñoom it ci lañ mbokk ak jigéen ñi nga xam ne ñoom it ñëw nañ taaral jotaay bi sëriñ bi daal ci gàtt gàtt mi ngi wax ne képp ku fi teew bula la gisee bu la gisut xolam gis na la lim dafa munta daj waaye nag ñëpp gis na leen mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla faj aaju yëpp ñu fekkee ay déwéni déwén e, ñi ngi séentu it e, suñ sëriñ cheikh abdullah mu cheikh mouhamadul xaaqibu Ibrahima Niass di ñaan yàlla mu agsi ci jàmm eh, fekkee jotaay bi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sëriñ bi ñoo ngi lay siyaara di la ndokkeel parce que lii bu amee it sa itte ci la bokk parce que itte mooy jubal ndaw ñi ku dégg xale yi wayu arab yi ñu fi jàng nga xam ne dëgg-dëgg kuy former ay ndaw di jéem ci loolu ñoom di leen ñameloo jaamu yàlla di leen bëggloo xam-xam di leen toppaloo njub loolu ci lañ la xam Cheikh Babacar ànd nañ barki bu dem benn dëkk fii bu ñuy wax euh, Kër Soose euh, wax dëgg yàlla euh, niñ ko tatagalee ak niñ ko bëggee ak niñ àndooxeeg moom ci yàlla loolu dafa jar di wax jaamu yàlla yi pour ñu pour ñu mën a xam loolu bu baax a baax a baax a baax kon sëñ Babacar daal tur uyu na boromam parce que moom euh, jikkoy Babacar la yore mooy dëggu ak dëggal ak jub ak jubal ak bëgg mboolem jaami yàlla yi sëriñ bi ñu lay ñaanal yàlla gudd fan ñu ngi lay ñaanal yàlla wér waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla wërsëg wu yaatu ñu ngi lay ñaanal yàlla mbooloo mu barke parce que ñu mel ni yow ñoo war a am mbooloo mu barke koo xam ne boo ko toppee mu jubal la koo xam ne boo ko toppee mu ne la yàlla nii la yonantu bi nii la kooku dëgg-dëgg ku jara topp la kon ndaw ñi ñu ngi leen di wax ne ngeen jug laxasaayu ànd ak Babacar liggéeyal Maulana Cheikh al Islam ci buntam nga xam ne mooy Cheikh Aaxibu wal xaaqibatu lil muttaqina ñu ngi ñaanal yàlla Cheikh Aaxibu yàlla may ko fan bu gudd may ko wér yàggal ko fi suñ kanam mu di ñu ñaanal te lépp lum ñu ñaanal yàlla nangu ko ñu ngi gërëm Kossy TV ci teewaayu Moussa ak délégation bi mu àndal yëpp. Moussa mii ku jara ñaanal yu wér la parce que naafile yeeg yëpp mi ngi ñu koy jox ñu ngi koy am ci internet bi ñu ngi koy am ci tele bi te loolu bëggoon nañ ko jamono te mënuñ ko xam ñu ngi leen di ñaanal yàlla Kossy TV ca kaw ca kanam ci barke alquran bépp matériel bu télé di am yàlla leen ko yàlla ñoddil jox leen ko ci barke say xaane ne suñu yaay ju baax ju tedd jooju ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ñu ngi koy ñaanal yàlla wér ndax jàmbaari fakk tëdd la kuy liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahima Niass la ñi ngi emale foofu suñu wax di wax ne euh, lépp lu jub ci présentation bi ci yàlla la ak ni ko soobee waaye lépp lu ci dëng ci ñun jaami yàlla yu xeebu yii la waaye buñ sañoon daal dëgg-dëgg yëf yi gën a jotale nii waaw waaw allah waaw waaw allah maam Ibra Faal billahi mooy waaye baay Allah la ilaha illallah Allah waaw waaw Allah Allah maam Ibra Faal billahi mooy waaye baay Allah la ilaha illallah Allah waaw allah allah ma mi Ibra Faal billahi mooy waayu baay allah la ilaha illallah allah ya allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah la la allah allah allah allah allah allah allah allah allah la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 আল্লাহ Mbaye Mawlana Mbaye Mawlana Mbaye Mawlana Mbaye yes Mawlana Mbaye Mawlana Mbaye Mawlana Mbaye Mawlana Mbaye yes Mawlana Mbaye Cheikh Babacar yaa waral lii Cheikh Babacar yaa ñu may lii Cheikh baay yaa leen la caam yaa ñu may lii yaa leen la caam kii mooy waay baay allah allah allah allah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 فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على النبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ورضا ربه وتقديسه عن روح إلف روحه روح الممد برغم الملد مولانا دفين فاس وسلوة الأنفاس أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجاني ورضي عن جميع خلفائه وأهل طريقته لا سيما صاحب الهمة العالية الحاج عبد الله نس وجميع أولاده البررة أحيي كل منكم باسمه واسم عائلته أزكى تحية الميمونة المبارك ألا وهي سلام الله عليكم طبتم فادخلوها خالدين mbokki jullit yi mbokki soppey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw biñ sante yàlla mi borom ñëpp ak fépp ak lépp di julleeti ci soppeem ba sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi tax ñu amal lépp waaye it di salmal ci ay saxaabaam yi ko daan guddil daan ko bëccëgal alquran di sonn ci ñoom di leen tagg waxtu wu nekk na lislaam bu fekkonte ne garab gu taxaw la ñoo jël seeni deret suuxatee ko meññet moomu ba ku nekk man cee jariñu ñooñu mooy tatajaafa junubuhum an il madaajici ñoom kat yadcuuna rabbahum xawfan wa tamcan wa mimma razaqnaahum yunfiquun loolu la doomi alxaaji abdullahi ñes def iqtibaas ci balaaxa maanaam jël wax jooju way ko ne ñooñu boo leen xamul mooy ulaika al qawmu xaqan ahli tuqaa wal maali ñoom usuudu xarbi nahaaran ruhbaanu bardi layaali athna al ilahu bima tala kullu taali ñoom bi annahum xayru qawmin akrim biha min xisaali di ñaan yàlla ngërmande ak yërmande yàlla dotti ko ci borom faas abul abbas kenn sóoraalewu ko ndax amul maas cheikh amul jenn doom ju tudd abbas firem de mooy ku fi raw moo la jox sa donkaas li tax ñu tuddee ko abul abbas lu mat a taxaw la ndax seydi ahmad tijaani liñ feeñal ci chamailu tijaani bu si ahmad sukayri ji bind mooy cheikh na tijaani fukki doom la am moom la seydi ahmad sukayri ji bind ñi dund ci fukki yi ñaar lañ mouhamadul kabir ak mouhamad al bachir waye Cheikh na Tidiane li tax ñukoy wax Abul Abbas lu jitu tariqam bi di ñew deut mal yoonu yalla yegg ci dafa won bu yo daan deut mal yoonu yalla pour yegg ci ñetti mbir nga daan jànkuwanteel bi ci ñeuk sa njaboot ngay ñeuk bayyi ñaarel bayit nga bayyi li ñuy tuddé hadina ñettel ba nga bayyi teraangay adina yi yeb bi Cheikh na Tidiane ñewé indi tariqam bi dafa jeex tak ñu tuddé ko Abul Abbas ki nga xamantene ne na ngir dindi borom xar kanam yi ñëkkoon ngir sonn ci jëm ci yàlla ñu ne tariqam bi moo gën a gaaw xef ak xif bi ci lahu xafifun min al awradi yuusilu man qad laazama al ahda xaqan lil futuhaati da nga ciy sax suba ngoon naasiril xaq bil xaq yegg ci yàlla am jazbu yéeg ca xadratul ilahiya ci loo xam ne doo ci sonn moo tax ñu tuddee ko abul abbas kon amul jënn doom du tudd abbas waaye it ki taawul leeram yi dëtmal ko indi silsila bu gàtt bi jege ba dem jafee muy alxaaji Abdoulaye Niass moom la ñu war a waxtaanee yàlla nañu ko yàlla fayal mboolem ay doomam di nuyu mboolem ku teew di kilifa waaye it di jiital ci jotaay bi shérif alquran moo ñu wax ne buñ dajeeg deret yonent bi nañ leen jiital te buñ leen jiitu yonent bi nag qaddimu quraysan wala tuaxiruha waaye it na nga yëg ne ñoom sopp leen mooy cosaanu diine waaye it bëgg leen mooy dëppoog sa yéene alquran moom lay wax ne man kaana mam xalifa moom lay wax ne kon man kaana xubbuhum asaasa diini wa buduhum kufrun bi xayri may ni kon da nga yëg ne ñii nii heure buñ dajeeg ñoom jiital leen nag mooy li war waaye it di ci teg mbooleem kilifa yi teew ci jotaay bi waaye it di ci jiital Cheikh Mbay Ngom mi nga xamante ne mooy suñu jazilal muhakkak arab yi dafa am lu ñu tuddee jazilal muhakkak mooy li nga xamante ne bant la bu ñuy daaj ci digg géew bi buñ ko fa daajee mboolem rab yi nga xamante ne dañ leen yeew ci gétti gi ci bant boobu la ñuy xasanoo olof di ko firi ne lëg bu lekkee alom na ko gërëmee coy tey guddi gi buñ mënee toog ci guddi gi yàlla di jël suñu nokk yi def ko muy bonis mboolem ku fi toog loo nokki tey yàlla bind ko ci sa dund daf koy def muy bonis grâce ak Serigne mbay mii moom moo ko may yàlla na ko yàlla may fan wu gudd wu ànd ak wér yaram yàlla may ko yokk ak yegg ak yàgg yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye it di ndokkeel bu baax jàngkat yi nga xamante ne ñoo teewoon fii damay faral di wax ne géewu zikar yi liñ ci am mu ëpp solo ma ko daan dégg si suñu maam mu koy wax alxaaji ibrahim ñas ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne am na place ci tant bu ñëwee ci place su yi lay toog loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax ñuy wax ne yonent bi nit ki du ko tagg ci xaalam ci sa xaal waaye ci xaalam nga koy tagg nga yëg ne yow mi koy tagg inda zar maanaam inda zikri salihin tatanazalu rahamat fi ngay wàcc taggee nit ku baax di ko tudd kenn gën ta baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay wàccee yërmaande foofu may wax ne it da ngeen di am ñaar muy ëllëgee bu ñu eggee yowmal qiyaam bañ lëgati leer ak saydil bachar jox ko ñi doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum sohbati في madaxi sayidina fa inna fil madaxi maanan laysa fihi al amalu ndax ibnul xatib ñun ñëpp xam nañ ko mi ngi dëkkoon Granada ci dëkk bu ñuy wax looja ibnul xatib papaam abdullahi la tudd waaye it yaayam amina la tudd moom mu tudd muhammad nee na lim jaamu yàlla yëpp yaakaaru ko dafa génn àdduna nit gént gis ko ne ko ibnul xatib noo def ak sa boroom ak tagg yu rëy yi nga ko tagg nit nañ suñ jotaay ñe bu buñu toge ñuy wax ñaari qasida qasida bi bi ci ñeek moy ya mustafan min qabl nash'ati adam wal kawn lam tuftahu lahu axlaaqu ayaruumu maxluqun sanaaka ba'dama athna ala axlaaqi xal mom moko moo ko way ibnul xatim moomu bind qasida bobu bi nit tëddee genti gis ko laaj ko ne ko no def ak sa borom daf na ko lima jaamu yëpp xoluko li ma ko tagg yëpp xoolu ko li ma tagg yonente bi ci ñaari xasida yi la d'accord dëgg dugal ma aljana kon ñun ñi nettali xasida yi nañ yëg ne yàlla danañu yëgal ci ibnul xatib incha allahu taala waaye it ñu fas yéene waxtaanee jëmm ju sell ju laab jëmm ju tedd jëmm joo xamante ne ñëwam moo waral suñ jotaay bi waaye li may jooy mooy waxtu wu gàtt ndax alxaaji abdullahi dundam lépp jàngale la waxtoom lépp jàngale la waaye lépp li ñuy jàngee ci dundam li ci ëpp solo mooy ci jamonoy ndaw la ko def te jotaay bi li ci ëpp ay ndaw lañ damay wax ne alquran tuddu na mag mu bon tuddu na jigéen ju bon waaye alquran tudd ñu ndaw lu bon alquran ñetti ndaw la tudd ci ñetti barab ñett yëpp fit ya la leen tuddee daf leen a tudd na ñu baax lañ ndaw li ci njëkk mooy group bi àndoon dajeeg buur bu ñuy tuddee diqyaanuus tuddoon asxaabul këfi ñoom ba ñu dajee ngir daw lu bon dën mal mbaax daw dugg ca xudduma alquran ba mu leen di tagg daf ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan ñii de ay ndaw lañ yoo xamante ne dañoo gëm seen bopp ba pare gëm li leen yàlla wàcceel waaye ñaareelu ndaw li alquran taggaat na ndaw lu baax la muy def iqtibaas ci ndaw yu ronu baas bi ndaw yooyu mooy taaluba ti yàlla Muusa alayhi salaam ñu ko doon wax yushau ibnu nuun yushau ibnu nuun ba yonent yàlla Moussa dët malee marajal bahraini ngir daje ku ñuy tuddee xadir taalibe ba mu àndaloon kooku la ñuy tuddee yushau ibnu nun alquran dafay wax ne kooku kuy xeñtu mbaax la ba mu koy tàgg daf ne iz qaala li fataahu fidyaan la ko tuddee abrahu hatta abluga majma al bahrayni aw amdiya xuqba ñetteelu ndaw li alquran tuddaat wane ne ndaw porté message u l'islam la yëkkati ko doxal ko ba àdduna bi yëpp téye ko te mu dajeeloon buur boo xamante ne dafa yilewu foon àdduna bi àdduna bi ñeenti nit ñoo ko masa a yilif l'est l'ouest nord sud ñeen ñaar ñi jullit lañ ñaar ñi yéefar lañ Namruuz moo ko masa a yilif dajee woon ak yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam beewoon ba fa mbawte yam bam jaamaar loog yonent yàlla Ibrahim mu xamal ko ne ko benn buura yeyoo jaamu muy borom bi subhanahu wa taala mooy kila bind bind sa yalla yi koku alquran bam koy tag daf na qaalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim kon ñet ndaw ñi rek la alquran ma sa tudd ñep daf leena a cité ne ñu bax lañ kon ndaw ñooñu ñoo defaat iqtibaas manam jeexantal ci bas bi di ndaw yooyu alquran tudd ñu fas porte drapeau l'islam waaye ñeenteelu ndaw li porte drapeau l'islam yóbbu ko ci àdduna yëpp te bi mu koy porté vingt et ans la am moo waral jotaay bii tey muy Cheikh al Ibrahim di doom ci alxaaji Abdullahi ñas miñ ñu war a waxtaanee tey kon mbooloo mi yoon la balaa ñoo dugg ci alxaaji Abdullahi ñas ñu def li ñuy tuddee iqtibaas moom la waykat bi jàkkaarloo woon ne ko Abdou yaay géeju mbambulaan ñëpp nga tuusee ngëneel yu rëy maam Abdou yaay gaal gi téye Sénégal ba képp ku fi ñëw daal duñ fay xalam ya ne ko moo njëkk a jël paas ziyaare jëm faas jëlee fa ay xaas yum rawe gaaya Abdoulaye Niass mi yemu ci xare na somb ci biiri bomb doonul lu yomb ca jamono jooja Abdoulaye mi xeex na paate baajaan dàq fay ndaanaan ba ñu bàyyi caaxaan mu daane xërëm ya kii mooy alxaaji Abdoulaye Niass waaye it yoon la balaa ñoo waxtaanee alxaaji Abdoulaye Niass ñu xam silsilaam cosaanam alxaaji Abdoulaye Niass ñan moo ko meññi ndax faras daq biñ ko laajee ñan ñooy sa cosaan daf ne ulaika abaa fa jinaa bi mislihimu ida jamaat naa yaa jarirul majamiu kon alhaaji Abdoulaye Niass pour ñu tudd ko il faut ñu tudd nash atom ak cosaanam xam li mu liggéey ci diine ji léeg-léeg ma dégg nit ne réew mi senegal diw sauvé na ko ma ne ko yéex na koo sauvé waaye dinaa la indil alhaaji Abdoulaye Niass ci yan barab la sauvé Sénégal ba ñuy mën a tudd Sénégal tey te lépp la mu nekk lu ñu bind saxal ko toxalee ko ci ay taarix yu wér benn bi benn téere la bu ñuy wax mutribu saamiin wan naadirin ñu ngi ko taalif 1890 alhaaji Abdoulaye Niass fekkee ko naar bu ñuy wax ibnu mbooja moo ko bind ñu jàng ko ci kanam alhaaji Abdoulaye Niass weddi wu ci dara téere boobu suñu maam Cheikh al Islam moo ko defaraat dool li ci yoonu fasu alhaaji Abdoulaye Niass wi dolli waat ci yeneeni mbir ngir sàmm ko ngir bañ nit ñi dolli ci lu ci bokkul téere boobu damay wax ne indi na ba indi ëmb yu tuuru sax biir kër maam alhaaji Abdoulaye Niass kon yon la pour ñu xam ko bu baax a al waaye abdullah ñes Niass ñu wara waxtane tay yalla dafa dogal mi ngi juddoo ci ñaari Al yu yu lab sen ciosan yëpp di qur'an di jang ak al alxaaji abdullah ñes waajuram wu gor mi ngi muhammad ñes muhammad ñes momu moy mooy al alxaaji abdullah ñes dekkon ca Jolof alxaaji abdullah ñes fa la juddoo alxaaji abdullah ñes bu ñu laajte fan la juddoo dañ nan dekk bu ñuy wax beeli beeli nag baat bi tukulóor la am na ñetti firi ci ci buñ koy firi am na ñu koy wax tuddee beeli am na ñu ko tuddee li am na ñu koy tuddee bellal waaye ñetti baat yi yëpp benn maanaa la yor ci li muy firi li muy firi daal cosaan li mooy foo xamante ne ndox bëbb aku bëbb dafay jaar alxaaji Abdoulaye Niass fii la ganee àjjuna ca Jolof ku ko jur wax naa la waaye juróomu góor moom Mouhamad Niass dañ koy wax Mouhamad Niass buñ toppee cosaanam topp ko mi ngi daanu ji ci uqubatu ibnu nafia mi ngi daanu ji ci rida rida moomu murabituuna yi duggoon afrique dugal fi lislaam ci la bokk dinaa la wax nan la ñu def ba yëkkati maanaam jaay la may ko muhammad moomu silsila bi di wàcc ba ci alhaaji abdullahi ñas nee naa li bu ñu laajee kan mooy waajuram wu jigéen dañ naan soxna xadijatu caam soxna xadijatu caam jigéen ju sell ju laab dëkkoon caameen waalo bokk ak Ibrahima Thiam kéllal mi ñu dippee suñu wayjur alhaaji Ibrahima suñu maam alhaaji Ibrahima Niass mi ñu ko dippee ñoo bokk nday ak baay ngeen bàyyi loolu xel bu baax a baax Ibrahima Thiam kéllal moomu setu maam Masamba Thiam la maam Masamba Thiam ci histoire dañoo jàng ne daara yi ñu taxawal ci réew mi yi ci gën a yàgg gën cee cosaanu nga xamante ne maam Maaram Mbakke mi meññi suñu maam se Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci daara jooju la jàngee maa suñ maam Ousmane mi meññi ki nga xamante ne mooy alhaaji Malick si ci daara jooju la jàngee daara jooju mooy daara ji njëkk a cosaanu fii ci senegal ci daara ju yàgg waaye it boo toppee waajuru jigéen wu alxaaji Abdoulaye Niass soxna Khadija ci Caam foofu la bokk silsila boobu waaye it Mouhamad Niass mi nee naa la silsila mi ngi bokk ci rida lan moo waral rida maanaam nekk suñu cosaan interview bi suñu maam alxaaji Ibrahima Niass Baye Niass mille

mu ne ko sëtu njaajaan njaay la santone mu ko jaay la yalla dafa dogalon bis mu waron fas fas wi mam mu duggu ci ay ñass manam ay ñax beut bi ñass ñu xey di wax jaay la mi ci ñass yi jaay la mi ci ñass yi nak ku xey seti ko lañ ne nu jaay la beut ba def ñu ne jaay la de beut bi dafa ñass ñu koy wax jaay la ñass rida bi mu jugee bayla ca Benghazi ca Libi nekkon murabitun bokkon ci kat yi daan dugal l'islam ci Afrique ñu bàyyi xel ne li tax l'islam Afrique porté combat bi yore ko ba léegi l'islam Afrique moo ko njëkk a sauvé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jullit ñi njëkkee gàddaay ñu digal leen ko daf na leen dem leen ci Habasha da ngeen fa fekk benn buur boo xamante ne laa yuzlamu indahu ahad du tooñ kenn muy Najaashi kon Afrique boo seetee am na benn anglais fan yi bu bind benn livre nee na am na lu ma téeméeri mila miracle yoo xamante ne nit ku ñuul moo ko def nit ku ñuul kooku ko def africain la kon Afrique ku yàgg a sauvé l'islam la yàlla bi mu dogalee ridaa ñëw àndoon nag ay xeej yoo xamante ne dafa amoon bopp bi wurus la mag ñi dañoo bëggoon wurus ndax dafa bokkoon ci seeni maanaam ci seeni koomtaloo bi ñëwee ridaa mi da ñëw na ci dëkk bi yàlla dafa dogal xeej yim yore dafa am ay wurus nañu fexe may ko jaay ndax jaay mi mii ci ay at yi mu am dafa magee du am ak moom doom politique bii la ñu tegoon waaye it dañu yëg ne borom bi subhaanahu wa taala may na yonent yàlla ibrahim ci téeméeri at ñaar fukk doom kon dara tëw ko yàlla dogal ñu may ko jay la mu am ci doom ñu koy tuddee muhammad ñu koy wax muhammad sàmba jay la ñes waaye it rida moomu borom kashfu la woon ndax bi jaay la ëmbee ci saa si rek moom mu war a takk ginnaaw missionnaire la dafay continuer mission ci la wax jaay la ne ko yëkkati kaamilu alquran jox ko ne ko bu juddoo Muhammad mii góor lay doon nañ ko tuddee Muhammad jox ko kaamil bi ne ko lii mooy ndonom kon ñeseen askanu ñeseen kii ci njëkk a jàng mooy Muhammad jaay la ñes kon ñoom askan wu dondu xam-xam lañ kon jàng rek moom moo leen war ñoom ndax dañoo dondu xam-xam bi yàlla dogalee jaay la juddu wax naa la cosaanam fi mu bokk maanaam Mouhamad Diaye la ñes juddu mu yëkkati kaamil bi jox ko ne ko sa bàyyi lii la la fi bàyyil mooy sa ndono yàlla dogal mu jël kaamil bi dem jàng Mouhamad Diaye la ñes moomu bi mu tollee ci takk soxna yàlla dafa dogal ñu may ko ndaw ñuy wax soxna Coro Fall soxna Coro Fall moomu surtout dëcce fu njoogu Fall la woon dëcce fu njoogu Fall mooy première dammel Kayor indépendant Kayor ci ci Jolof la bokkoon waaye déccee fu njóogu mi bi ñëwee moo indi indépendant première dammeer Kayoor di indépendant mooy déccee fu njóogu soxna Coro Fall mi surtout déccee fu njóogu Fall la ñu jël ko may ko ki ñuy tuddee Mouhamad ñu koy wax Samba Jaay la Ñas ñu am ci benn doom doom jooju moom la ñu tuddee Mouhamad al Amin ñu koy dàkkantelee Laamin sa Coro yéen a ngi dégg bu baax ñu ngi koy dàkkantelee Laamin saacoro lamin saacoro moomu moo am doom ju ñu tuddee Bakar ñun askanu ñeseen yëpp boo seetee fi ñuy dàkkantelee mooy banu Bakar la ñuy wax maam alxaaji bind na benn téere boo xamante ne biñ koy laaj askanu ñeseen téere bi ñu ngi koy tuddee birrul abar fii taarifi fii awlaadi bani Bakar mooy askan wi nga xamante ne ñeseen gi yëpp fa la ñuy dellu ndax li ko waral ban dafa nekkoon borom xam-xam dafa nekkoon ku neex a tiitaroo dafa nekkon ku daan siggil askanu ñeseen ci njambar ci fit ci mana jang nekkon nit ku sel ku lab ku tey bakar momu jur ma demba ma demba momu mo jur muhammad muhammad jur alhaaji abdullah kon silsila alhaaji abdullah ñes ci boko sété sete, ba ci uqbatu ibn nafi fi ma jaar fi la kon ulaika abai lima waxon fa jinaa bi mislihimu ida jamaatna ya jarirul majamiu nee naa la Mouhamad ñas mi baayam yàlla dafa dogal lu jiitu alxaaji Abdoulaye ñas amoon na ñaari doom ba ñett doom ji ci njëkk a juddu Mouhamadul Moustapha la tuddoon Mouhamadul Moustapha dafa juddu yàlla dogal kër maam alxaaji ku ne xam na ne këru xam la woon këru njàng woon këru njub la maam alxaaji nee nañ na bind na sax alquran lépp lum ci jàngale ak lum ci tafsir ak lum ci firi lenn rek la ci xamutoon lu muy tegtale ak lu muy faj te ba mu demee bay mujj a génn àdduna ci dundam yàlla wan na ko ko muy ñax gu ñuy wax salguuf te nee na ku ko bind boole koog salaamun qawlan min rabbi rahimin takk ko sa néeg du tàkk kon mam la xaji xamoon na lépp yàlla dafa dogal mu nekkoon kon askanam bu ñu jugee ci wàllu faj ci wàllu njàng ci wàllu njàngale dana néew nit jot leen ci ndax moom université bu daan taxawal universitaire yi la Cheikh mbay nak taari temps bi dafa gàtt Serigne mam Alhaji dafa gudd lool konon dina wax fim jaar ñiko jangal ñiko yar bim fa joge rihlam bu ñeuk ñim xarel bim joge jugee fam fa deme yoonu makam fi jaar ñim dajal ba téré yi dugalew na xam nañ ko kon kenn du Alhaji Abdoulaye Niass yalla nañ ko yalla fayal ndax yàlla def ko def moom mooy sël ki nga xamante ne moom la Ibra Khoudia waxoon ne ko Abdoulaye ngi nee di dem Gambi di dem kon Makka bu demee dellu si képp ku ñëwat demati da nga dellusi si waaye it nee naa la mooy yaqubu tariqati yaqub fukki doom ak ñaar la amoon mooy Israil moom lañ daan wax Israil fu ngeen ko dégg mooy yaqub doomam yëpp ay yonent waaye alhaji Abdoulaye Niass fukki dom ak jurom ñett la am domam yépp ya, di ay waliyu suñu mam Cheikh al Islam mo daan wax ne manam jurom ñeent ma ci mak mam ak jurom ñent ni boko topé moy tolok bind na ci qasida bo xamantene way nañ ko abdu yaay géeji mbambulaan ñepp nga tousé ngeenal li doy sa daara jee génne bépp kang ya waral seeni gangunaay ci yow la buur yàlla feeñalee li ñëpp doon ut ci xeeti may ci xeeti ay nit ak xeeti réew fépp fopp foo wax ñëpp na cey noonu laa limee doomam bi ba mu jeex tàkk taaw ba caat waaye it nee naa la baayam moo ko jàngal alquran kenn jàngalu ko ndax li waral baayam jàngal ko al alquran boo seetee ñeseen ñëpp cosaan li boo ko toppee ñëpp seen baay leen jàngal ndax nit ki bu la jàngalee dana la yaral te nit ki bu la yaralee dana la xamal te bu la la xamalee li nek ci ci yaw mom mokoy def ci yow Haji abdullah Niass bayam Muhammad moko jangalal bopam boppam alquran ba mu mokal bayam moko alquran wax naa la it buñ toppee cosaanam fi mu juddoo moom alhaaji abdullah Niass bu teunk Dan juddom ci teunk rek ci hijriya dañ nan mi ngi judd 1264 ci hijriya li ni mi ngi ton ton tombek la 4 ci zul qiada mom la tomber ci weeru arab buñ koy xol buñ koy xol mi ngi tomber tombeek le 2 lundi le 2 octobre 1884 mooy tondoog alhaaji Abdoulaye Niass gagné ci aduna waye it gagné aduna dëkk bu wax jolof li ma lay wax ni boko bëggé xam ñaari delu way ngay delu ben delu wat bi ci ñëk moy kibritul ahmar bu mam khalifa ci sharha bi mi ngi ci bind alhaaji Abdoulaye Niass fan la ganee àdduna ak naka la ganee àdduna mutri bu saamiin bi ma lay wax wan naadirin bi ibnu mbooja bind te suñu waajur al suñu maam alxaaji Ibrahima Niass Baye Niass sarxawaat ko dolliwaat ci yoonu faas wi boo demee da nga ci fekk lii ma lay wax dara du ci dañ waaye it nee naa la Mouhamed Niass mii bi ko yare yàlla dogal mu jàngal ko alxaaji Abdoulaye Niass toll na ci buntab jàng xam-xam te li gën a yéeme ci jàng gi mooy alquran jàngal na alxaaji Abdoulaye Niass bam jeexal xaaju suuf alxaaji Abdoulaye Niass mës a gis kaamil wo sax bobu amul bobu dafa jakar jàkkaarloog mom ne ko sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa ñu jàng darsu bobu tay suba ñu tegaat benen darsu ni la jange ba jeexal khadju suf alxaaji Abdoulaye Niass moo mës a tukki ci benn dëkk ngir xam ne lim doon jàng mengona ak li nek ci kamil bi ñu indil ko kamil mu xol ko ne ah li da la jangon mu mengo waye jàng na ba jeexal khadju suf li gën a ma sa gis kamil Cheikh Mbaye naka jekk na xam-xam noonu lay doxee day génnee ci jënd góor yàlla yi jëm ci dënd góor yàlla yi ñaari barab la ko alxaaji Abdoulaye Niass ba mu demee ci yoonu Faas nee naa la Seydi Arab Ibnul Muhib ba koy jox Ismulaay Azam daf na ko dama la koy dicté ñetti yoon boo ko mokkalee ma xam ne sa cër la boo ko mokkalul nag ma xam ne du sa cër Cheikh Mbaye yaakaar naa gars yi dañuy wax ne loolu am na ci lum génnee ci xayul xayum ndax ñetti barab la ko alquran tudd القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم jeexna ñetti barab dañ koo nëbb nag moo tax borom bi subhaanahu wa taala tudd ko ci ñetti barab kese nanguwul mu ñeent ñett yi nag junju la loolu ismulaahi adam la yàlla nañu ko yàlla xamal waaye it nee naa la njàng mi li gën a yéeme loolu moo moo daal alxaaji Abdoulaye Niass waaye it ba mokkalee alquran ba jàng xam-xam ba pare lii ëpp ci xam-xam baayam moo ko jàngal waaye it am na keneen ku ko jàngalaat xam muy nijaayam ju bokk ak yaayam nday ak baay Ibrahima Caam Kellal ñii na sax moo ko jàngal ba mu tafsir alquran bokk na ci it keneen ki ko jàngalaat muy Malick Nabou Niass seen ñaari baay yi ñoo bokk nday ak baay Malick Nabou Niass mi jàngal na alhaaji Abdoulaye Niass xam-xam ba mu fa jugee it ba yàlla dogalee guerre bi yàqu woon ca somb ñu gañe woon fa maba yàlla dafa dogal ku ñuy wax Mokhtar Fan Ndiaye ñaan jàngal alxaaji Abdoulaye Niass tafsiral ko waaye alxaaji Abdoulaye Niass wëlbatiku na mujj nekk di guerre ci général yi mujj ba indi stratégie bi nga xamante ne moom lañ gañee somb tey moo sauvé réew mi foofu laay ñëw ci tënk rek ndax temps bi dafa gàtt alxaaji Abdoulaye Niass Cheikh mbay dafa am xare bu ñuy wax Pawas Koto ñu koy wax somb ñii ne déedéet Paate Badiane ndax somb ñu ngi ko def 1868 ña ngi ko def fan ca ñaaxaar waaye it xare bii ma lay wax moom la ñuy wax Pawas Koto Pawas Koto lu jiitu loolu Lat Joor dafa tuub ndax dañ koo gañe Kayoor mu dem ci dammeel bu siin pour mu làq ko dammeel bu siin bañ mu daw ñëw ci Maba Jaxu Ba ndax Maba Jaxu ko amoon ndigal la ci jihaad ndax Maba ñaari mbir moo taxoon mu taal jihaad bi ci njëkk mooy ceddo yi dañ leen a faree woon côté càmmooñ tubaab yi faree leen côté nday joor ba pare tooñ leen tooñ yu métti ndax boo seetee ci buuru ceddo yi am na kuñ ci doon wax daaw Demba Fall daaw Demba Fall ñetti mbir ku kàccooroon la ñetti mbir la tegoon julit ñi nekkoon ci jamono jooju ne leen képp ku ci takk soxna balaa ngaa joteeg moom da koy indi weeru yàlla ma joteeg moom xam nga loolu mbewte la ñaareel ba it mu ne leen ku ciy togg doo xorom fifteen waaye naka la nit mën a toggee te du xorom cinam ñetteel ba it mu ne leen dëkk bi dama fi aaye ku fudd fudd neexaayu fudd daal man buur bi kese maa koy xam ñetteel ba it mooy naa njigi sept mille soldaar boobu jullit ñi ñëpp matuñ mil matuñ mille de te tubaab yi ñu ngi ci sept mille soldats Lat Joor ña ngi ko daane dëkk bu ñuy wax Loora ca mu ne leen man damaa am lu ma bëgg a wane ndax tubaab yi man maa leen xam ndax jaamaarloo naa ak ñoom ñu ne ko ci ban anam mu ne leen dañoo yore li ñuy tuddee kënu alaajab laa gis ne ko lan mooy kënu mu ne ko fépp fu mu dal lu mu gàtt gàtt juróom fukki personne danañ ci génn àdduna alaajab laa gis ne ko benn stratégie am na ndax ñun ñoo boot xur wi nañu yett garab yi ba mu tolloog suñuy taxawaay ñu kaala ko buñ ko kaala tubaab yi yore nañ ay lëngër yu ñuy zoom pour xool ñun fu ñu toll buñ ko gisee bu ñu jubee danañ dóor seeni kënu bu bal yi jeexee ñu wëlbatiku ñun attaqué la alaaj Abdoulaye Niass moo indi stratégie boobu gagné guerre bi waaye may laaj bu fekkante ne tey yàlla dogoon na stratégie boobu génnu toon te lii ma lay wax ni boobu alxaaj Abdoulaye Niass mi ngi am 19 ans stratégie boobu génn woo toon ñu rey mabal rey soldaar yooyu yëpp ana fan lay réew mi diina di fi taxawee te guerre boobu ñëpp a ngi ci li ma lay wax nii moo gën a doy waar ndax guerre boobu mbooleem ñi am sax-sax ci réew mi tey tey dundal diine ci réew mi seeni maam ña nga woon ca guerre boobu kon alxaaj Abdoulaye Niass dafa sauver réew mi kii bu sauver wutoon réew mi ca la may wax noonu kon boobaa ndax réew mi danañ tey tey di di wir doo naasiril xaq bil xaq Cheikh Mbaye temps bi moo gàtt lool lool lool alxaaji Bilaay Ñas nekkul ku ñu war a ci benn minute dañ koo war a xam bu baax a baax dañ koo war a xam bu baax a baax a baax ndax suñu maam alxaaji Ibrahima Ñas dafa daan wax ne benn jour nit mas na di ko maamee ne ko xanaa de yaa man sa baay mun a bëreet jug toog defaraat toogaay bi ne ko xanaa yëgoon ne may buñu am lenn la ci mayu alxaaji abdullah ñes ne man qasa walidan ala waladi fa ayna furuun lahu ka furu'i walidi ne kep kuy méngale sama baye ak bayam mang koy laaj ñaar ne indi domi sama baye am ak domi bayam am وايد بما خيلو المام خليفة نيس دفكو فينيو نكو ما من وليين في الزمان ولا وعلى إلا على هو برتبة وسناء ما من وليين ما لا إتليزة ما هو نفيو ما من وليين أمو البن وليو في الزمان جو الحاج عبد الله نيس جامونو وانتل ولا وعلى لومو كاوي كاوي كاوي كاوي كاوي إلا على هو ما نيو مانا وخ إلا على هو بكاوي نكو مام الحاج عبد الله نيس السيق ناسخ حلم ولا يسابق في دار من أرمي يا زمان بسيق ناسخ حلم ولا يسابقه في دار من أرمي ما نال قط زعيم مثل نائلي فطال فوق السيوق الدهر كليمي خليفة القطب في العلم ومعرفة أهلا وسهلا فعازا سيقظ قدمي وافر قديجة بإذن لا نزير له ولا سبيت فهذا نعمة الأمم يلا نيو يلا فايل الحاج عبد الله نيس شام باي دوما تنك دماي تنك ndax taabi mo gatt lol waye de tatagal bu baakha baax kilifa yu mag yu sel waye nañu yëg ne liggéey bi yëpp liggéeyu alxaaji abdoulay Niass ndax ca yoonu makam wa yàlla dafa dogal mu jaal Alexandre jënd fa ay téré waye it fa la gisé système bi ñuy dag tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy kiko ñëk indi Sénégal ndax buñ daan gamu dañ daan netali xasidaay imaamul Busayri yi amin tadhkuri jiranin bi di salamin madajtada ma an jara min muqlatin bidami أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومد البرق في ظلماء من إدمه alxaaji Abdoulaye Niass copier yooyu yëpp indil ñu ko yàlla nañu ko yàlla fayal dañuy tënk guddi na yàlla nañu yàlla fayal alxaaji Abdoulaye Niass fayal ñu ay njabootam waaye yàlla nañu yàlla fayal Cheikh al Islam ak mboolem ay njabootam yàlla nañu yàlla fayal mboolem njabootu alxaaji Abdoulaye Niass waaye it képp ku koy liggéeyal ba bis penc yàlla nañu ko yàlla fayal di leen bëggal rek di bëggal suñu bopp ci alxaaji Abdoulaye Niass liggéeyal ko rek moo wóor ndax daf ñoo dugal ci garanti boo xamante ne amuñu ko ndax bañ ko laajee na ko sa dem gi ngay dem faas dem gi ngay dem makka sonn gi ngay sonn si diine xanaa yàlla bu la fayee ci àdduna lu àjjana lu toll ni àdduna nga jël ko mu ne leen kon ba delloo ko ko fu may def sama taalu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أبي الحاسم مصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر mbokki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi teew fii ak mbokki taalibe yi di leen ndokkeel di leen ziyaare ci xaal yi leen yàlla may ak ci maqaama yi leen yàlla taxawal kenn ku nekk ci yeen ci daraja ji ko yàlla may ci yàlla ak xaal yim am ci yàlla man seen mbokkam taalibe seen mbokkam julit maa ngi leen di ndokkeel ci may yooyu yàlla nañu ko yàlla nangul maa ngi nuyu shérif euh, di ko ndokkeel bu baax di nuyu sëtu maam alxaaji abdoulaye ñas yi fi teew yépp Euh, di ndokkeel ak ziyaare Cheikh Hassan mi doon def waxtaan wi ci baxsu bu taaru bi mu fi teewal nga xam ne wax na ci Maam Alaaji Abdoulaye ci nasabam ta xam naa ku ko gis ak ku ko déglu xam ne bu du toon waxtu dana egg ak ñun ci sulukul ibaada bu maam alxaaji abdullah ndax wax na jihaatu maamalaaji abdullah wax na askanam wax na jihaat bi mu def xam naa bu amoon temps dana egsi ci maam alhaaji abdoulaye digganteem ak jaamu yàlla ndax loolu moo jur après yi xew yépp ba maam alhaaji abdoulaye nekk benn madarasa ci àdduna bi boo xam ne ñi jëlee diine ci madarasam kenn xamut niñ toll ci àdduna bi te loolu du dagg ilaa yawmal qiyaamati insha allahu taala kon Cheikh Hassan ñoo ngi lay ndokkeel bu baax waxtaan wi neex na eh, yal na la yàlla gën a dimbale ci barke maam Alxaaji Abdoulaye ci barke yi ko yàlla may ndax barke yàllaa ko moom tudd na ko ci alkuraan ay barab yu bari waaye fu ko tudd damir gi day dellu ci yàlla Euh, wolof mooy wax barke diw rek mais barke moom yàllaa ko moom moo koy mayee kon barke yim yàlla may sa maam yàlla na la ci yàlla jox cër bu yaatu maa ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu tamit sëriñ bi ñu dendal di sëñ Faarox Ñas maa ngi koy ziar gis naa sànq mu def gest bu rafet di encourager xale bi doon def discours bi euh, encourager ko ñemeloo ko loolu touché na ma sànq ci li ngay encouragé xale bi parce que nit ñi fow ñu tàggat leen ci daxwatu ilallah tabaaraka wa taala te kilifa dafay ñemeloo njabootam jox ko fit jox ko jox ko courage sëriñ bi maa ngi lay ziyaare euh, sànq bi ngay encouragé xale xale bi sori na ci man euh, maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax maa ngi nuyu Cheikh Babacar Ngom euh, di ko ziyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla ci liggéey bi nga xam ne daf ko jaayante ak borom bi jaayante ko ak ayima may yàlla teg ci kanamam te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Mawlana Cheikhu Tidiane di sëriñu tarixam mu jaayanteeg Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Ñas mu nekk naanuwaayam ci jëm ci yàlla mu jaayanteeg ñoom ci ne seen njàngale bi ngeen dund ba dee ci ci nit ñi ci la bëgg liggéey loolu mooy tax mu jug am ndigal ci ku am ndigal ku mët a joxe ndigal di Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu xafizahullah wa waraahu mu jox ko ndigal ndax isnul xaas ak isnul am dafa am jullit bu nekk am na ndigal ci ooteel yàlla waaye isnul xaas mooy nga jàppaat jagle ci ñooñ yàlla ilhaamu rabbaaniya yi wàcc ci ñoom mooy tarixa yi turux yi may yi wàcc ci ñoom foofu nga amaat ci beneen ndigal boo ne ñoom ñoo la koy jox ndigal boobu dana nekk benn benn xuwatu xuwatu ruuxiya doole ruux boo xam ne soo ootee ruux yi dañ la mën a wuy si mu jël ndigal boobu ci sëriñam Maulana Cheikh Mouhamadul Aqibu nga xam ne yàgg na koy liggéeyal ci at yu bari yoo xam ne seen daayira bu mag bi nekkoon fii ku miin Mbay kër Ngom miin nga ko kër sëriñ Aqibu ci gàmmu miin nga ko ci bépp xitma bu taalibe di def ci àndoog nit yàlla pour ut barke pour ut ñaan pour ut ku ko éegee ci yàlla tabaraka wa léegi rek bi may waxtaan ak sëriñ bi euh, mbokk yi ma àndal ñëpp ñoo ànd doon ziar sëriñ bi maa ngi koy yëgal na ko jotaay bi euh, danga ma cee terale ne ci parrain yi laa bokk euh, ba tax na sama ñëw fii sax ma boole ko ak jotaay bi ndax ci yeneen waxtu ci biir koor gi laa doon ñëw fii ziare si sëriñ bi waaye jotaay bi moo tax sax ma gën a xëcc sama ñëw gën koo jegeel pour seet ci sëriñ bi waaye dàkk it mu tolloo ak jotaay bi euh, ñëw nañ ànd ak mbokki taalibe yi euh, Cheikh Mass imam Mass ura ngi nii euh, sang Ibrahim Dia ak Cheikh Mor Thiam ak Cheikh Youssoufa Gueye fekk naa fiit suñuy àndandoor Cheikh Baye Ndiaye ngi nii léegi ñëw na ak suñu yenn njaboot gis naa fi Abdou Ndour ak Fat Sagna ñoom suñuy àndandoor lañ ci yàlla fii lañ dëkk ak chauffeur yi ma àndal euh, ñëw nañ ngir wut si leer ngir wut si ñaan ngir wut si mëdët ngir ñëw dooleel la ci jaayante bi nga jaayante pour joxe yowit sa wàll ci tasaare xam-xam tasaare leeru lislaam tasaare jàngale Cheikh Ibrahim ak waajuram euh, ngir muy sa participation ci dundu gi waye muy sa participation ci l'islam muy sa participation ci tariikha tijaniya ak fayda tijaniya maa ngi la ci ndokel bu baax maa ngi ndokel suñu xarit di sa xarit nga xamne ne nekké Dakar li ci gëna a bëri jamono yi euh, mom ngay nekkal kërëm ngeen and momit ci liggéey bi rek la nekk di Cheikh Baye Mbaye Euh, di kuñ xam moom it ci tasaare fayda bi ak diine ji ak tarixa bi ci dakaar ak fudut dakaar loolu mooy liggéeyam mooy xëyam mooy gontam euh, moom maa ngi koy ndokkeel bu baax di suñu wëllëre di suñu xarit di ko ñaanal yàlla moom it yàlla defal ko tawféex euh, waxtu yi ñu toog waxtu yi barke la ndax fukki fan ci weeru fukki fan yi mujj ci weeru koor Euh, ay boroom xam-xam rek a fi nekk ay jàngalekat rek a fi nekk ku ne xam na doole jim am ci biir weeru koor euh, laylatul xadar ñëpp dëppoon nañ na ci weeru koor la ne comme ni mu rotee ci riwaaye yi wér yëpp waaye ñëpp d'accord nañ xadis yi gën a wér ci sixaax yi ci fukk yi mujj yi ci la guddi laylatul xadar nekk kon bu ñu amee sensu guddi yi ñu toog benn toogaay boo xam ne toogaay jàngat xam-xam la toogaay jàngat taarixu benn nit yàlla boo xam ne bi ko yàlla feeñalee ci àdduna meññ na meññet boo xamante ne mboolem continent yi boo demee da nga fa fekk jeextalu ku jàpp ci mamalaaji ci alquran jàppee ko ci kër maam xalifa wala jàppee ko ci kër baay wala jàppee ko ci ay sët sëtaatam euh, loolu liggéey bu yàlla nangu la euh, liggéey bu yàlla nangu la kon ñun bu ñuy waxtaan ci mamalaaji pour roy mamalaaji ci ragal yàlla roy maam alaaji ci nam doon sikkaree turu yàlla roy maam alaaji ci ñam doon naafilee nam doon jàngee alquran ngir yàlla di ko jaamoo yàlla nam fegoo woon ci làmmañam ba du wax lu ko wóorut nam doon lekkee lu lew ba taarix yi mag ñi di wax ci moom ne mos naa lekk sax gerte guñ ko may gerte gi xaw ko jax-jaxal xolom ba da ko mujj wàcc ci xale bu ko romb rek mu ñaan ko xawma moo ko may ni ko mag ñi nettalee nga gis euh, sell nuraaniya gi nekk ci xolam ak ci rooxam ci nit ñu ko jàngalee euh, jikko yooyu ku soobu rek mën ngaa bañ a nekk mamalaaji waaye mën ngaa nekk xalifa mamalaaji mën ngaa nekk waaris ci mamalaaji loolu daggul yàlla moom tëjut bunt boobu yàlla na ñu yàlla dugal ci biir daaira boobu euh, wax ji du mën a gudd ay ndokkeel rek la Cheikh Ibrahima mi nga topp dama xalaat léegi ñaari waxam ñaan yàlla yum ñaan ma doon xool suma galerie léegi gis ay lenn ci ay waxam ma ne lii de war naa ko fàttali sama bopp ndax Cheikh Ibrahima dafa ñaan ci sifaawul askaam mu ne anil nii maqaman qad taqassara duunahu jamiu fuxuuli fi zamani wa ma yaati bila sababin minni mu'aafan fa inna nii rajaa'i kabirun fi malaazi wa man jaati dafa ñaan dafa tagg yonent bi sallallahu alayhi moom buy tagg yonent bi léeg-léeg def ci def tawassulu ci biir tagg gi maanaam di yalwaan yonent bi ngir mu sàkkul ko ci yàlla maanaam du sirk dafay def tawassulu ci biir wëy gi may wëy yonent bi maa ngi ci éene nangam loolu lay firi mu ne anil ni nag ma may maqaaman ak taxawaay boo xam ne xat taxassara duunahu jamiul fuxoolin fi zamani wa ma bobo maqaama boobu mbooleem ci sama jamono ak ñiy dikk ci sama ginnaaw kenn bu mu jot dayoo maqaama boobu euh, sañ na ko yàlla maye euh, soxla da nga koy tudd moom ñaan na yàlla yonent bi sàkkul ko may ko maqaama boobu mu ne bi bila sababin min nii nang ma ko may ci lu nak, benn sabab nag ndax maqaama bu yam noonu munu ma ko sàkku toroxlu la ci munuma ko sakku ci ay nafile munuma ko sakku ci jangal qur'an munuma ko sakku ci saraxe mbollem yu bax yi ñu digal ci digante wax ak jëf dal dafa melni ni bu ko bëgg a jaaree foofu yeex yéex rek ci sa bi fadlika wa bi rahmatika motax tax mu ne bila sababin minni ci lulut ben effort tuké ci man nak ci may maye maqama bi mu aafanta nga jamal ma ndax maqama bur yam nonu da fay andak ay nattu da fay andak ay fitna waye nang mako may ta jamal ma muna fa inna ni i kabirun fi malazi wa manjati muna ne maa ngi lay xamal nag yow sama wéeruwaay yow mi ma yakar naka man ah sama yakar lu rëy la ci yow sama làquwaay bii te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yow sama mucceekaay yow mi nga chi yau ci yow lay yau ci yow A Yau nanti bi ñëpp ñu mucc ci safara ci moom lañ muccee ñëpp ñu am chi ci chi ci njàngaleem lañ sukkandiku wéy la kon maqaama boobu nag bi ko bàyyi ñaanee mu feddali ko ci beneen waxam mu ne wa tóoru si nii yaa rabbi minka xilaafatan wa ilman wa juudan duuna an muliyal soxbu wa tajcalu misri hazihi mutma'innatan tasuusu bilaadillahi lam yan uhaa karb wa tahdi biha ajnaasa xalqika kulliha ala rahmi anfin min munaawin wa man yasbu وتهدي إلهي ما أتاك مطالبا من الأبد إبراهيم ولياته الجلب باي من مانغي لاي نيان وتورو سوني نغما دوندلو يا ربي يا سما بروم منك خلافة نغما دوندلو خلافة خلافة جيغا جوخ داوود جوخ كو سليمان jox ko yonante صلى الله عليه وسلم jox ko awliya ullahi nga xam ne boo demee ci kënzul awliya ca mujj ga yaa ngi gis bàyyi fay rafaat mbooleem ci anbiyaaw yi musa taxaw ci martaba xilaafa ak awliyaaw yi moo ngi ñaan yàlla taxawal ko ci maqaama bu mu ne nag maqaama nang ma ko may ak xam-xam bi maqaama bi àndal nga xam ne borom maqaama boobu dafay attan nit juddu nit ba ba muy faatu daf koy attan ci wàllu yàlla dafay attan nit ki ay penseem dafay attan nit ki ruuxam dafay àttan nit ki ak muskila yi muy dund ci jamono bu mu mun di doon borom maqaama boobu nit du ko dépasé xam-xam bi muy amee nit mën na dund téeméeri at di soxla xalaat di soxla euh, lu ko orienté borom maqaama bi daf koy attan loolu moo tax boo demee ci njàngale Cheikh Ibrahima yi da xam ne kii école am attan na nit ak niveau bu nit mën a am mustawa ilmiya boo mën a am kii xam-xam bi mu teg ci àdduna bi attan na nit ci ku soxla xam-xam ak ku soxla te maandu ci kula yóbbu ci yàlla waxuma koy fo nag ak ku jàpp mbir yi ay noosa ki ay barke ki ay daanu aala ki ay yooxu yooyu ba léegi am na yoo xam ne ci yooyu lañ toll mais dimension Cheikh dafa taxaw pour orienter nit yóbbu ko ci niveau bu kawe bi yàlla soxla nit pour mu egg ci yàlla nañ ci bokk yàlla nañ ko comprendre mu ne xam-xam bi maqaama bi àndal xam-xam bi day ànd ak tabe nga am xam-xam bi ba pare tabe nag ngir jox ko nit ñi mu ne nag ma nag ma defal loolu mu wax ak nag dëkkam bii mu sos mu ne nag wa tajalu misri hazihi mutmainatan na nga def sama dëkk bii di madina mu nekk dëkk bu dal tasuusu bilaadallaahi mu nekk fondement wu dëkk yàlla yi waxin la bépp nit bu jaar medina tarbiyawu jàng fa sharia jàng fa tariqa def sa suluk jaamu yàlla nga jug sanc kër di fa doxal li bàyyi doon doxal ci wàllu taqwa ci wàllu jëm ci yàlla wala nga sanc dëkk sa dëkk boobu dëkk la ci dëkk Medina mu ne kon na nekk fondement wu dëkk yàlla yi mu ñaanal Medina nag mu ne lam yan uha karbu mu ne Medina nag bu ko njàqare laal moo tax Medina suuf suñ garanti la wa tahdi biha ajnaasa xalqiqa maa ngi ñaan nag nanga jubal nit ñi ci sama dëkk bii di Medina mboolem xeet yi na nga leen gindee ci sama dëkk bi ah, léegi rek biñ jugee ci jumaa ji yaa ngi xool waa Indonésie yaa ngi xool ay différentes xeet yoo xam ne mën a waral rek la lay jox nga xam ne ñaanam nangu na yàllaa ngi màng xeet yi yàlla amal ci àdduna bi waxtu wu nekk yàllaa ngi jël ci ay xeet ñuy dajeek ay taalibeem di jël kóllëre Cheikh Ibrahima ci ñooñu di ñëw di ko ziyaare dégg nga di ñëw ci jumaam ñëw ci xabroom di liir ay téereem di jonjook ay ay ulamaawam yoo xam ne jaar nañ ci madrasaam loolu gis nañ ko Medina mu ne loolu nag ah mu def nag góor yàlla yi dañuy xuloo léeg-léeg mu may googu nag ala rahmi an fi min mu naawin wa man yas bu moo xam naqari na bakkani koo xam ne dafa maa sori wala koo xam ne dafa dëng léeg ñoom it xam nga euh, léeg-léeg ñu xuloo yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy ñàkk seen may waaye alhamdulilah ñu fi toog ñëpp ay sëtam lañ toogal ak soppeem alhamdulilah ñun bokkuñ ci bokkuñ ci ala rahmi an fi min mu naawin wa bu mu ñaan nag wa tax di na nga faj ilaahi borom sama ma ataaka mataliba lépp booleem li ma la dikkal ci ay càkkutéef maa ngi ñaan nang ko fajal jambi minal abdi ibrahima wal yaatihi wal jalb tukkee ci waxtaan nañ ko uh, ci kanamu mbokk yi wan ko ni nga ñu ni nga ñu fonkee ngir yàlla ak soo ñëwee Dakar ni ngay ñëwee di ñu si loolu yëpp gaaral nañ ko ko kilifa bëggul lu may njabootam soppante ci dëgg soppante ci yàlla lolu boo koy jegeel sa xolu kilifa lu bax la da fay xamne suma njabootu ruu gi andok man ci yalla euh, ni lañ mel te lolu jëfee nga ko ak ñun ma ngi jéggolu ci guddal gi euh, kaddu kuñ ne paré nga rek la waye suma xal mo doon ma tok rek déglu ba ki ngeen ñaan ma daldi di wa akhiru daxwana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah alam ba nga bo ku fa dem tay yarang dawlu wet kabal bang mu kampe sodan sidi wara hamma ibune halam bunga baho kufa dem tay yarang dawluit karak bang mu kampe sodan sidi wara hamma junu balen pesela yandal de kulo sodan pese bale tuse sodan sidi wara hamma junu balen pesela yandal de kulo sodan pese bale tuse sodan sidi wara hamma ibu ne yàlla buñ yàqu te buñ yàqule yàlla buñ uñi mboot yàlla nañ dee ci soppu baay sidi bara am yàlla yàlla boole ñu ci kuri bala ànd ak baay keroog yow ma yuba suunaay sedi barahama yàlla yàlla bolin cu sappi su njëkk sa jëm elina yàlla bu ñu reero kaamil sedi barahama yàlla yàlla boliñu su sappi su njëkk sa jëm elina yàlla bu ñu reero kaamil sedi barahama ibune an xaahuma ne noon ci awru ruusi loolu doy na waar bu taxuloon ak baram dañ jeex sedi barahama an xaaw tojee axlu ruusi tuuti kon ñu jeex an xaw ay na ci max jub seydi bara amma an xaw huwa jàpp ni ñag jur ga dëkk xoolee doom ja ruusi xaw na nooy de seydi bara amma ba dégga meete hamsalata ibnu sahwan daldi mer ba haal daldi yëg ca tey ba téléphone seydi bara amma afsalata konan barahama walul bala ñaaw an qaahu yang ñuy suuxal sidi bara maa nga naan ana jibril kay ma demal xaybu malaaka yaa soxla naa leen sidi barahama jibril dal liingal juney la fi naaw ba ca biir xaybu wadde to fettanan uy leen sidi barahama asrafilu seefu gendarmerie jóg di rappel para dem soxla nañ leen sidi barahama ibune malaaka yaa xaacu andandoor xaacu naw ba génn xaybu wàccu ruusi sorde sabbal sidi wara amma malaaka yi forcé an xaw yi fadd leen ñu jeex xaqang malaaka di kiimaan sidi wara amma ibu ne baraama seen fajar gëccu luuti i fadde ba jeex xaqang malaaka di bëri niw sidi wara amma bëril ma jugi bëril ma jugi malaaka ya xaacu suuf sa jalaañoo keroog danga alag waylun sidi wara am xaami ah, soodaan dañoo sangoorey santuwaale liit looloo tax ñuy weddi suñ baay sidi wara am ah, mala nabra yi sangu yiram naasuru borom dootul génn waylun sidi wara am ah, ibune rëy gu métti dox di fuddu askan dafay alak jaam loolu moo di jikkoy gaañi weddi wara am gëm sa bopp ak dox di fuddu alak jaam loolu moo de jikkoy gaañi weddi barahama ba Papa Lamine oye waa Kaolack ndax lu ne xool looloy xadaaratul jamoo sidi barahama ibu ne bilaay moos ngan nga ku ko fekke da nga sa xilaaf bufta ya kero long ya dengog sidi barahama asanal mbambulan la barahama ko mbaal mu ngi ko gàdde Mawlana Sidi Barama Abdou Qadir Jeyliw Baxdaad Barama ku wax yu gis bu ba nga ko Sidi Barama Abdou Qadir Jeyliw Baxdaad Barama ku wax yu gis bu ba ko fekke Baxdaad Sidi Barama laa ilaaha illallah la ilaha illallah tuub leen ta tarbiya Cheikh Tidiane wàcc soodaan la ilallah xayartu Seydi Bara ma fas leen àddina te te bañëre roog baay seexoo des seen murabbi mooy sidi barxama yàlla moo daji bagul islam bi jébbal ko barxama tëji ndambi la reen jébbal sidi barxama yàlla mi daan yónni yónneetul jëmmam jeefi teew turul xaqi ñëw na soodaan seydi bara am ma ñay buy xall mbabal doom yaa tax مشروع بي مولين وطولين بود مي مونيخ سيدي بارا اماني بي قلن بابال دومياتخ عايش مولين جبيل تحل نكر محمود سيدي بارا همان سيدي بارا امامون مشروع بي ابدفنين دخم إساس دوين كفين داي دفن يوكو داي قدولي Seydi Baraama mu ne ma soobu ndaw warum gaa gën a ay yaanu sangangaay ma joobi wattu leen nongoy Seydi Baraama bi Yàlla di daxale ak Seydi Baraama fa mulku ak malakoot ku ko fekki wutoon bul weddiiti Seydi Baraama bay bëtam bu jekk ba bu ko xoore ca kaw asamaaw mulku ak malakut la ca biir seydi barhama baa ñes binam ba day dàq seytaane te dero sa leer Ibrahima Diouf santal gërëmal Sidi Barhama Ibrahima Diouf santal ki la roose ba nga sa xilaaf faddu jaami xobbi doomaas Sidi Bara amma mu ne xaatir naa ba gërëm sey naa ni suukar ci biir meew a Diouf tagal ma sa Sidi Bara amma mu ne baatab kun bu jige ko ko weddi yo iblis nga yaakaar ahlul namanya bang bañ sidi barhamman yaaru nganji libi wayna wo samsu bari ler fude xaami ñu dem jamran sidi barahama no dakaru la bajare du ge janga yëngu gandak ganaan labbayka barham wallan la qallal ma yon Seydi Barama àllarba gàddaay ga lañu merloo Barama ibnu Abdullahi gunde ñanaaw naawe fu waylun ñoom ñëpp ku nekk yor xeer wallahi solan galan nu ton ndaw mbas Seydi Barama jëmmi pey baa konan barxam muy loo xoy say doom ku ñembi ñembay lépp lem yéen Seydi Barama suma nampon arab mbaama sañ wax li baay doon nukun suuf si tampok asamaaw si di barahama ibu ne baay jëmmam ja paas na jëmmi xutbu baay waxal ñu ko doon seexu tijaan nga ñi de si di barahama ñu ngi sant yàlla digal ñëpp ñu sant yàlla alhamdulilah ngi nuyu sang jotaay mu ne mu ngi nuyu sang jotaay bi. muy sëti maalaaji yi. di sëti maalaaji Abdoulaye yi. nga xam ne tey ñoom ñooy lampab jotaay bi. nga xam ne tey ñoom ñooy lampab jotaay bi. ñoom ñooy taarab jotaay bi. ñoom ñooy jotaay bi. ñoom ñoo tax jotaay bi mel ni mel. ñoom ñoo tax jotaay bi mel ni mel. ndax tey. ndax tey. lu ñu fi yàlla yërëmee rek. li ñu fi yàlla di yërëmee. seen barke la ak seen barke. seen barke la ak seen barke waajur. ak seen barke maam. ak seen barke maam. muy maam El Hadj nga xam ne kenn werante wut ni nga xam ne kenn werante wut moom góor la. moom góor la. te ku doon góor rek. te doon góor rek. ci moom nga génne. ci moom nga génne. kon maa ngi leen nuyu bu baax. kon mu ngi leen nuyu bu baax. yu barke di nuyu muqaddam yu barke yi. muy Cheikh Sakhir. di nuyu Cheikh Sakhir. di nuyu Cheikh di nuyu Cheikh Baye Mbaye Niass. di nuyu Cheikh Mouhamed Ngom mii di. mag Cheikh Babacar Ngom mi waral jotaay bi. di wax Cheikh Babacar nag. di wax Cheikh Babacar. ne ko kontaan naa. ne ko kontaan ko sëriñ bi nee kontaan na lool ci yow. yow mi waral jotaay bi. ndax Cheikh nga xam ne bi ñu yàlla boole ba léegi. nga xam ne bi yàlla boole ba léegi. toujours mi ngi rafetal. toujours yaa ngi rafetal. mosuma xam ci moom lu ñaaw. musta xam ci yow lu ñaaw. mosuma xam ci moom muy def loo xam ne ni yàlla gërëmu ko. musta ci yow ngay def lu yàlla gërëmu. wala lu yonantu bi gërëmu. wala lu yonantu bi gërëmu. wala lu bàyyi gërëmu. wala lu bàyyi gërëmu. wala lu Cheikh Tidiane gërëmu. wala loolu na bu amee li muy tegtale. loolu bu amee li muy tegtale. mooy boromam yar nañ ko fañ ko war a yaree. mooy boromam yar nañ ko fañ ko war a yaree. jàngal nañ ko fañ ko war a jàngal nañ kon ñu ngi lay ndokkeel. kon ñu ngi lay ndokkeel. ndax jotaay bii. ndax jotaay bii. daaw. daaw. laa fi ñëw di waxtaan si. la fi ñëw di waxtaan si. comme ni ma ko daan defee. comme ni mu ko daan defee. ndax maak moom. ndax moom moom. yaakaar na 2004 ba léegi. yaakaar na ne 2004 ba léegi. ñu ngi ànd. ñu ngi ànd. ma ñëw fi di waxtaan si. mu ñëw fi di waxtaan si. mu ne ma dama am jotaay. mu ne ko dama am jotaay. boo xam ni. boo xam ne. sëriñ bi moo ma ko may. sëriñ bi moo ma ko may. muy Cheikh Mouhamadul Aqib. muy Cheikh Mouhamadul Aqib. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla yàggal ko fi. yàlla yàggal ko fi. may ko wér. may ko wér. defal ko mbooleem magam. defal ko mbooleem ay magam. defal ko mbooleem ay rakkam. defal ko mbooleem ay rakkam. bi ma waxee loolu. bi mu ko waxee loolu. ma ne ko loolu de lu rëy la. mu ne ko loolu de lu rëy la. ci biir jotaay bi ñu toog fii de. ci biir jotaay bi ñu toog fii. ndax dama ñëwoon naan si ataay rek. di waxtaan ndax moom dafa ñëwoon naan si ataay rek. di waxtaan. di waxtaan. mu ne ma waaye li ma na ci jotaay bi mu ne ko waaye li ma namm ci jotaay bi mooy tuddee la ko mooy tuddee la ko booba bo maanaam boobu ñu ngi ci biir koor gi maanaam booba ñu ngi ci biir koor gi ko amul benn problème mu ne benn problème jël naa jotaay bi jël naa jotaay te di xam ne jël naa ko xam ne jël naa mu ne ma jotaay bi mu ne ko la ko bëgg a tuddee chaque année dama la ko bëgg tuddee année ma ko jotaay bi daal mu ne ko maa ngi lay xamal ne jël naa ko maa ngi lay xamal ne jël naa ko te ma ne ko jotaay bi di nga xam ni. jotaay bi di nga xam ne. yàlla dana ci ànd. yàlla dana ci ànd. yonant bi dana ci ànd. Baay dana ci ànd. bi ma delloo kër ga. ba mu delloo kër ga. waxtaan ci ak sama soxna. waxtaan ci ak soxnaam. muy Seyda yaa nenne. muy Seyda yaa nenne. muy soxna soo xam ni. di ne. ku ko xam. ku ko xam. xam ko ci liggéeyal Baay. xam ko ci liggéeyal Baay Ñas. moom dafa xàmmee bàyyi. moom dafa xàmmee bàyyi. xaarut ci dara. baqaarut dara ci bàyyi. dara du ko tayaloo ci bàyyi. dara du ko tayaloo ci bàyyi. amut lu mën di doo rek. amut lu mu mën di doo. ndéem la ci bàyyi la génnee rek. ci bàyyi la génnee. moom attan na ci. moom attan na ca loola. bi ma ñëwee wax ko ko. bi mu ñëwee wax ko mu ne ma jotaay bi sama jotaay la. mu ne ko jotaay bi sama jotaay la. moo tax sànq bi ngay wax. moo tax sànq bi ñuy wax. dama ne la jotaay bi jotaay yaa ndax tey. ndax tey. luñ fi def. luñ fi def daw ak ren. daw ak ren. mom la. mom la. man daw ma ci dara. mom du ci dara. lépp mo koy taxawé lépp mo koy taxawé yëkëti na alalam. yëkëti na alalam. jox ma. jox ko. yëkëti ay talibim yëkëti ay talibim jox ma. jox ko. talibé yi talibé yi moy sécurité bi moy sécurité bi muy cause TV muy cause TV muy Cheikh Diassé muy Cheikh Diassé mi xamné mag la ci talibé yi mag la ci talibé yi Moussa bi tay Moussa bi tay moy yor cause TV moy yor cause TV sécurité bi sécurité bi ñom ñep ñom ñep xam nga ne ki bu ne jotay bu jotayam la xam nga ne ki bu ne jotay bu jotayam la wané nako wané nako kon ñu ngi ñaan yalla yalla kon ñu ngi ñaan yalla yàlla fay ko te yàggal ko fi te ko may ko wér maa ngi sàkku ci sang yi mu ngi sàkku ci sang yi nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal wax naa fi daaw wax na ko ñaanal nañ ko ñëpp la njëriñ ñi ñëpp la amul ku mën di doo rek amul ku mën di doo ku ne jëriñ na la lu dul ne jëriñ la tey tey bari na looy bëgg a seetaan ci pays bi bari na looy ngi Kossy TV mu ngi fu mu jugee fu mu jugee yaa nee ni loolu rek buñ ci xooloon. loolu rek buñ ci xooloon. jar naa ñaanal jar na ñaanal. waxuma laag nag. waxuma laag nag. alalam. alalam. teraangaam. teraangaam léppam. léppam. ñeexal na. ñeexal na. jaami yàlla yi jaami yàlla yi. yal na yàlla fay ko. yal na yàlla fay ko amiin. maa ngi ànd sama xarit. mu ngi ànd ak xaritam. Mouhamed Thiam. Mouhamed Thiam. muy sët ci Pape Macky. muy sët ci Pape Macky. Euh, di ku baax. di ku baax. moom it ñu yàgg lool. moom it ñu yàgg lool. mu doon nit koo xam ne. jotaay yu mel nii. jotaay yu mel nii. fu may dem rek. fu muy dem rek. day ànd ak man moom. daaw daf ko fekk mu tukki. daaw daf ko fekk mu tukki. moo tax ñëw ji. loo tax ñëw. ñu ngi koy ndokkeel. ñu ngi ndokkeel. ñu ngi ndokkeel ñëpp. ñu ngi ndokkeel ñëpp. di wax ne. di wax ne. maa ngi leen yoo. mu ngi leen yoo. ci ne nañ nekk taalibe. ci ne xool leen sëñ Aliou Cissé. xool leen sëñ sëñ benn mag wax na ma. benn mag wax na ko ne. ne bàyyi nee na. ne bàyyi nee na. sëñ Aliou Cissé. sëñ Aliou Cissé. sutee wuñ ko. sutee wuñ ko. lu dul taxawaay. lu dul taxawaay. waaye lu romb taxawaay. taxawaay. moo ci sut ñëpp. moo ci sut ñëpp. muy xam-xam. muy xam-xam. muy cër ci yàlla. muy cër ci yàlla. muy cër ci yonent bi. muy cër ci yonent bi. muy cër ci baay muy cër ku ne xam ne ni loolu yëpp ku ne xam na ne sëñ Aliou Cissé sëñ Aliou Cissé yemu cee kenn yemu cee kenn wax leen wax leen yemu cee kenn sëñ Aliou du morom kenn sëñ Aliou Cissé du moromu kenn maa Ibra Fall du morom kenn maa Ibra Fall du moromu kenn Cheikh Omar du morom kenn Cheikh Omar Touré du damet damet te ñooñu ñëpp te ñooñu ñëpp xooluñ xooluñ lu dul doon taalibe ndoneel ndoneel xilaafa xilaafa muqaddam muqaddam lépp lépp doon taalibe rek doon taalibe rek nañ fexee doon taalibe nañ fexee doon taalibe buñ ko tëlee buñ ko tëlee nañ bëgg doon sama kàddu mu ne lii daal doon kàddoom maa ngi baalu àq mu ngi baalu àq sangi yi sang ngi ngi di balu àq waa di balu àq waa tante bi asalaamaaleykum Jangan, wa rahmatullah ci ndax loolu du lu nëbbu ndax eh, jamono firi na ko jamono firi na ko ci lu gën a gàtt ci lu amul benn sikk sàkk dafay kontaan lool di ci wax ay baat yu gàtt di ci wax baat yu gàtt yoo xam ne du gudd ndax jotaay bi dafa gudd te waroon nañ ko yëkkati bu yàgg ndax ci anamu weeru koor lañ ne waaye dañuy jiital suñu nuyoo waaye dañuy jiital suñu ci Cherif Aidara mi nga xamante ne mi nga xamante ne wóllëreem la xaritam la nitu démb la te du fàttu benn yoon te du fàtte benn kóllëre ndax lu tax yàlla moo ñu dëxal ci alquran ne inna al aada kaana masulan nekk kóllëre day bokk na ci li ñuy laaj kon Cherif Aidara amut sikk sàkk ne moom bokk na ci ñi doon yonent bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon wilaaya Cheikh Tidiane képp ko am wilaaya du wor dafay fonk kóllëre moom ci la bokk muy xaritam dëgg daaw lañ tàmbali lii yàlla def ci tawféex tawféex bu mag ci ñaanam ak ci garantam ak ci waxam ndax satu Cheikh Tidiane la xaqan satu yonantu bi la xaqan ci lu amut benn sikki sàkk ta te xam na ko xam bu leer nañ ci lu amut benn sikki mbaax yi muy wax ci man. mbaax yi muy wax ci moom. moom dafa fekk ne moom moo ñu ko jiitule fuuf te moo ñu ko. dafa fekk ne moo ñu ko jiitule fuuf te moo ñu koppale. ci deret ci deret. ci ay maamam ci mboolem koo xamante ne askanolam. ci mboolem koo xam ne askanolam. ba pare ba pare. loolu doyatut. mu ñëw askanowaat ci Maulana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy saahibul fayda di saahibu daxru samaan amul benn sikk sàkk jamono ci nga xam ne yàlla daana ko junju yonent bi di ko junju Cheikh Nama Tidiane di ko junju amul sikk sàkk ne Maulana Cheikh Ibrahim la kon Cherif Aidara moom amul safay mu ngi lay ñaanal yàlla te lot na ci ñaanal la waaye day àbbu làmmiñ ci sëriñam muy Cheikh Aaxibu Ibrahima Niass mi nga xamante ne moo def ci moom mëdët moo def ci moom baax moo def ci moom xam-xam moo def ci moom leer bëgg ko gis soppi ko ndax moom <coughs> moom du dara te ñëpp xam nañ ne moom du dara ndax fii la juddoo fii te ñëpp xam nañ ne moom du dara waaye Maulana Cheikh Ibrahim waaye Maulana Cheikh Ibrahim moo tëbb Maulana Cheikh Aqib Niass mu def ay ngëneelam ci moom ba ku ko gis bëgg ko ndax ñoom waaye bu fekkoon moom kese la kenn du ko bëgg te loolu lu mu xam la te lu wér la te amul sikk sàkk kon Serif Aidara kontaan na ci jotaay bi mu ngi lay ñaanal yàlla te ñaan gi muy ñaan nii. ci xolam la ko tibbee ndax daaw ñëw nga teew fii ànd ak Kossy TV mi nga xamante ne mi nga xam ne soxna su baax soosu moo ko moom di ko doxal ngay borom këram yàlla boole la ak moom ci boole bu doy waar Maulana Cheikh Ibrahim boole seen diggante ci lu doywaar yàlla defal la ko mu loolu xusoosiya la jagle la ka saalika fadlullahi yoxtii man yasaaw wallaahu sul fadlil asim ku ci man dara kenn te amut si sikk sàkk ne soxna soosu tey ci jamono bokk na ci soxna yi nga xam ne ñoom mën nañoo téye jamono mën nañoo téye àddina ci seen loxo ndax am nañ mbóot mi am nañ wilaaya gi am nañ madad bi am nañ jokkuwaay bi te loolu amut benn sikk sàkk kon dañ lay gërëm di la ñaanal yàlla di ko ñaanalit moom yàlla di ñaan jëf yi muy def nga xam ne yàlla rek tax mu koy def te amul benn sikk sàkk ne yàlla tax mu koy def ndax daa wax na ne képp koo xam ne man nga yor ndogub jumaa ji ba weeru koor wi jeex xaddab jumaa ba weeru koor wi jeex ta ngay jigéen kooku boo nee jigéen la nax nga nit ñi boo nee jigéen la rek nax nga nit ñi kooku góor la ndax lu tax góor la Mawlaana Cheikh Ibrahima wax ne moo wax ne suma jigéen ñi ay góor lañ sama góor ñi ay góor lañ ñu koy gërëm bu baax baax mboolem reer bu fi ganaar moo ko fi def moo ko def ci xaalisam jël enveloppe bu mag tegaat ci indi fi Kossy TV andi andi fi ay matériel am andi ay taalibeem kooku amul fayam kon mu ngi lay ñaanal yàlla abbu làmmiñu sëriñam lott na ci de waaye Cheikh Aaxibu di doomi Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass kum samp nga dëgër kum deey nga ñeme comme ne demal nga dem te kenn du la wàññi amut sikk sàkk kon day abbu ci làmmiñ boobu ñaal la ci yàlla yàlla fajal la say aajo ak aajo yaa ne nii ci la amut benn sikk sàkk ba heure bu ne saa su ne waxtu bu ne lii mu koy man lu ëpp loolu ci ay daraja yàlla mën na lu ëpp loolu te yàlla tëlewut ko de yàlla suñ ko ñaanee mu def ko mu ne ñaan na ko te yàlla na ko yàlla def te yàlla def nako bu yag sax ndax ma Ibra fall mo ko ne yow soxna neel ne sama mbot nga xam nga ma Ibra fall moy kan xam nga demb ak ma Ibra fall ci motax ma ibra fall motax ma Ibra fall fall nako ma ibra ak tos nga motax ibu juf nako yow ma Ibra fall gàncax ak tos nga duutoo juk ci nat muk ndax bëru sam-sam lañ la rosé amut sik sak kooku moy ma Ibra fall moy ma ibra Faal moo motax da sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu di gërëm jotaay bi ak ñi fi teew ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy suma wëlëre ñi nga xam ne ñooy ay wëlëreem ci tarixa bi ci tarixa bi di ay mbokkam ci diine ji ay dëkkandooram ci koñ bi di ay dëkkandooram ci tarixa bi ay dëkkandooram ci wàllu lislaam ay dëkkandooram ci wàllu dëkkandoo comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi comme ni ko mu ne dem na ba nga xamante ne Jibril ñëw na sama nopp yi. mu ne dem na ba nga xam ne Jibril ñëw sama nopp yi. di ko wax ci àq dëkkandoor. di ko wax ci àqab dëkkandoor. di ko wax ci àqu dëkkandoor. bam yaakaar ne bu deexee dëkkandoor da koy doonu. kon dëkkandoor ñun amuñ seen fay. kenn ku nekk rek fii. gis na la tey. ñëw nga teew. def ci sa alal def ci sa doole ñëw teew ak ñun loolu dëkkandoo rek moo ko man moo tax tey bu fekkoon ne dëkkandoo dëkkandoor dana donn amul sikk sàkk na dana donn ndax boo xewlee lu bon wala boo xewlee loo xam ne musiba la moo fay njëkk a teew boo xewlee loo xam ne bànneex la moo fay njëkk a teew kon amul sikk sàkk dëkkandoor yi amul lu ñu leen mën a faye ñu ngi leen di bàyyi yàlla yàlla mi leen mën a fay yàlla fay leen ndax Maulana Cheikh Ibrahim nim tàllalee àddina bi ci xam-xam ci wilaaya ci mbóot amul sikk sàkk ne moo ko def ci ñun te làmmiñ boobu wala mboot moomu bi omat xoli jaamu yàlla ci ñun kon bu fekkee ñëw nañ baay dana faj suñu aajo yi taamut sikk sàkk yi ñun mënuñ ko de waaye baay mën na ko te moom wér na ko péng na mën na ko mu ne ko gis démbam fekkee démbam fekkee tayam da nga xam ne baay mën na loolu da nga xam ne baay mën na loolu amut benn sikk sàkk ñu ngi leen di ñaanal di leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm suma xarit bi di gërëm xaritam bi toog. muy Cheikh Baye Mbaye Niass. muy Cheikh Baye Mbaye ñas mi nga xamante ne. mi nga xam ne. sama wëllëre la. wëllëreem la. sama nit la. nitam la. xolu wali yàlla la yore. xolu wali yàlla la yore. nit ku baax la. nit ku baax la. nit ku yaatu la. nit ku yaatu la. heure bu ma demee Dakar. heure këram lay dal këram këram lay dal ba nam fay jógee kii yàlla daf ko barkeel kii yàlla daf ko barkeel boo xoolee jëmm ji rek xam ne kii yàlla daf ko barkeel xoolee jëmm ji rek xam yàlla daf ko barkeel waaye nag may yooy yëpp waaye may yooyu yëpp ko jëlee ci Mawlana Cheikh mu ngi ko jëlee ci Mawlana Cheikh Ibrahima madat boobu baay mu ngi ko jaarale ci Cheikh Mahi Cissé baay mu ngi ko jaarale ci Cheikh Mahi Cissé muy ay mayam muy ay mayam loolu saalika fadlullaahi la yu tiiman yasaaw wallaahu sul fadlil azim yàlla boole ko moom muy nit ku barke kon ñu ngi lay gërëm sa itte yi nga bàyyi waroon dox yeneen itte borom mbooloo la borom mbóot la borom ijaaba la borom xam-xam la am am na taalibe international te xam na ci dara xam naa ban façon la te xam na ne moom ban façon la kon ñu ngi lay gërëm kon ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay ak Cheikh Sakhir mi fi jógee mi nga xam ne euh, wëllëreem la muqaddamu Cheikh Aqibou Ibrahima Niass la muqaddami muqaddami mu Cheikh Axibu Ibrahima Niass la. muqaddamu Mawlana Cheikh Axibu Ibrahima Niass la. foofu ci Mawlana Cheikh Axibu. dafa am ijaaza foofu ci Cheikh Axibu. moo ma njëkk am. moo ko njëkk a am ijaaza foofu ci Cheikh Axibu. ci Cheikh Axibu. boo demee Dakar lam fa taxawal. boo demee Dakar lam fa taxawal. ci at yu néew. ci at yu néew. waaye di nga xam ne sëñ Axibu moo garaaw. da xam ne waaye sëñ Axibu moo garaaw. waaye moo am mbóot. amul sikk sàkk. moo ko samp moo ko samp dëgëral ko dëgëral ko boo demee foofu noonu da nga gis lam fa samp da nga yemu boo demee foofu ba gis lam fa samp da nga yemu ci yàlla waaye ñu ngi kontaan lool waaye ñu ngi kontaan lool ci waxtaan yi mu fi jot a def ci yim ñu fi defal xam-xam yim fi tuur ci diggante bu gàtt soo ko déggee rek soo ko déggee rek da nga xam ne yaru Mawlana Cheikh Ibrahima ngi nii soo ko déggee rek da nga xam ne kuñ préparé ngi nii ndax defar nañ ko amul sikk sàkk kon ñu ngi koy gërëm moo tax mu boole woon ko ci pare yi di ko uh, sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla comme mi ngi dellu yàlla na dellu ci jàmm lépp lu mu bëgg a samp ci faydu beeg tariqa bi ak diine ji ak faydu beeg lislaam bi ak faydu bi yal na ko bàyyi dëgëral barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem sikkarkat yi fi teew sikkarkat yi fi nekk yëpp yëpp ñëpp gërëm na leen ñoom ñëpp bàyyi nañ seen ippe li muy wax toujours bàyyi nee na yéen ay sang ngeen mu ne loolu waxut ko bàyyi ko wax bàyyi moo ne yéen ay sang ngeen moo ne yéenay liggéeykatu moo ne yéenay liggéeykatu faydu bi te zikrul ilahiya mubdatul wilaya wa muntahat wa muntahatil ula wilaya mubda wa muntaha mubda wa muntaha zikrul ilahiya mooy li tijji wilaaya waaye moo tëj wilaaya amul lu a koy parce que wala zikrullahi akbar moo tax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar wala zikrullahi akbar amul sikk sàkk kon zikrullahi amul lu ko raw rek sikkar la rawe moo xam sikkar wéet moo xam sikkar mboolo ku raw rek sikkar la rawe amul sikk ndax yàlla nax kenn kenn musta naxe boo tegee rek mu teg la te amuñ ci sikk sàkk kon ñu ngi leen di gërëm di leen ci gën a ñaax yàlla na yàlla dafa leen tawfeex euh, ak Cheikh Omar Farouk mu fi ak waxam yu ak Cheikh Modou Thiam xaritam moo moo jël otoom bokk ci combat bi ànd moom ba ci sëriñ bi amut fayam di nit ku baax di nit ku baax ñu ànd ci lu ne dafa ngoo teraanga bu ne di nit ku baax ñu ngi koy gërëm baax di ko ñaanal yàlla ak euh, mboolem euh, ku fi nekk ak mboolem koo xam ne yaa ngi fi waa kër Tunkara yeeg ñëpp soo gisee mu bëgg mu mujjee ci mbokkam dafa xam ne ñoom ñoo ko gën a jege ndax samay mbokk ñooy samay mbokk ci deret ci meññet ndax ay mbokkam ñoom ñooy mbokkam ci deret di suma xale ba suma suma mag. di ci xaleem ba ka ci gën a mag. samay xale ba ba nekkee ci xale. ci xale ak xaleem moom mii. ba ci ak magam. ba ci samay mag. ba ci ay mag ak ay magam. ba ma nekkee mag. ba bam bam nekk mag. am naa euh, maximum euh, lim bi doon yonent yi doon am ñu sant leen daawa ci yàlla. mu ne lim bi yonent yi doon am ñu sant leen daawa ci yàlla am na ko. am na ko am na ko. kon li ma tege nii dama ko tege ci lu leer nañ. lim teg nii da koo teg ci lu leer nañ. ndax mboolem yonent bu mos a woote. ndax mboolem yonent bu mos a woote ci yàlla. am na at yoo am yàlla sant la mission. te ba nga ko amee tamit. te ba ko amee tamit. dootuloo ndaw dootuloo ndaw. ndax yaay yaay sangi àddina bi. ndax yaay sangi àddina bi yëpp. ndax ay ay ay ay at du du du duut mat. ndax ay at duut ak mat. ak mat mat mat mag mag dëgg. ak mag dëgg. fuqaraaw fuqaraaw. mboolem kubaraaw yi mooy mag ñi de mooy xaarifina billaahi xaarifina billaahi loolu la ñuy jàngal Seex na Ahmad Tijaan loolu la ñu wax yonent bi loolu la ñu wax bu fekkoon mag mooy aas kon yonent bi du jiite ay baayam kon yonent bi du jiite ay baayam du jiite ay magam. bay taxam yam jiite woon baay taxam yim jiita woon ak màggat yam jiite woon ba pare du doon sang mbindeef yëpp min la dun ka aadama ilaa fi nafaqatin fi sóor kon mbir mi du mbiram aas waaye waaye danañ ko delluwaat ci aas parce que ñii dañoo fekkee démbam munu leen a bëtt te du leen bëtt ba ilaa yawmi diini xalaatuñ ko sax ndax ñoo ko mag ci ayat taamut sikk sàkk di gërëm taaw yaayam toujours mu wax ko mooy Modou Ngom mi toog mu teg ci buuba magam ak Cerno moo ci moo ci gën a doon xale ci at waaye ñu ngi sant yàlla mbirëm yàlla bu doon toon mbiram yàlla man maa fi gën a doon xale moo fi gën a doon xale te léegi man xale te ba léegi xale la ñu ngi sant yàlla ci ñu ngi sant yàlla ci loolu di gërëm galas di gërëm galas moom mi damay wax toujours ne moom day wax toujours ne ko moo ma sax moo ko raw sax. ci njàng nii. ci njàng nii. moo ma raw moo ko raw. ndax moo ma njëkk a jàng ndax moo ko njëkk a jàng sànq ci biir waxam dëgg la wax li mu wax sànq ci biir waxam dëgg la moom la njëkk a moom la njëkk a dugal ci arabu oustaz Dieye muy jàng am fa ay mm, papaam moom la njëkk a dugal ci arabu oustaz Dieye muy jàng am fay diplôme ba mu génnee ba mu génnee mu dugalaat ko ci école nas nga xamante ne Baye moo ne ku fa jaar barke mu dugal ko ci école nas bi nga xam ne ku fa dugg barke Baye moo ne ku fa dugg rek di nga barke Baye moo ne ku fa dugg rek da nga barke te amul sikk sàkk te amul benn sikk te yàlla defal na ko ndax dem na ba ci kaaba ga fon ko ko te boo ko gisee doo ko yaakaare te sant yàlla ana lu gën a supérieur loolu ana lu gën a supérieur loolu ci wàllu zahir ana lan moo gën a kawe loolu a koy loolu nit a am am lu dul jeex nit a am lu dul jeex te munta dem munta dem aji mak te munta dem aji màkk moom nag yàlla defal ko ko moom yàlla defal ko ko kon ngoneel la saalika fadlullah ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la wàccee sa cër baax di gërëm macha allah Galas. di gërëm Galas. Euh, nga xamante ni moom dama ko wax ne ko man yaa fi toogal sama papa tey. nga xam ne moom daf koy wax ne ko yaa fi toogal sama papa. ndax sama papa ma ko yar. fii mu doonoon koo xamante ne. dafa jege woon sama papa trop fii mu doonoon ku jege papam trop. ci Zahir. mboolem sama mission papa yi moom moo ci xamoon dara. mboolem mission yi papaam daan dox moo ci xamoon dara. ba kees ñëw teew ci ne ma sa jotaay bi mu ne tey jii bu jógee koo kees ñëw ba fii ne sa jotaay bi rek tax ma ñëw. mu ne kon papa ma teew. kon loolu du kon loolu du asaar ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ak suma mag yi fi toogoon ak magam yi fi toogoon ñoom paati ñoom ak ñoom gànnaak ñoom ramaak ñoom ramaak ñoom mameeg ñëpp ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di gërëm macha allah ñu ngi gërëm ñoom moom toujours ma wax ne aw ma fayam parce bu fekkutoon bu fekkoon ne moom moom ci boppam daf ma daf ma jurut ma mu ne yaayam mu ne toujours mu wax ne amut fayam ndax bu fekkoon def jurut ko kon kon ci jamono ji ñu ma toll ni du ma toog fii kon ci jamono ji mu toll fii toll nii du fi toog fii ak nu matu méttee yeeg yu kenn ak ni matu méttee yeeg yu kenn mu ne saahir lay wax il faut ngeen may ma dégg ma ci saahir mu ne il faut que ñu ko ci saahir arif billahi nag laay waxal mu ne mbokki arif ne billahi lay waxal wax ak ci saahir samay mbokk mu ne foog ngeen may ko saahir mu wax incha allah moo tax ñoom aw ma seen fay. moo tax ñoom amul seen fay. aw ma seen fay. amul seen fay. te du am seen fay mukk. waaye mu ngi leen di ñaanal yàlla. yàlla yàlla dëgëral leen. yàlla fay leen. barakati rasulullah. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. waa Kossy TV. am ngeen yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla